Euh, mbokk yi ba tey ñu ngi ñëw daje kenn koo xamante ni doomu waay la kenn du ko présenté muy guy gi guy gi euh, ku mag génn ci ci àdduna muy Père Balla euh, yan témoignage nga ñu ci mën a defar waa d'abord dañuy sant yàlla di julli ci sant sama ñaari waajur maa ngi nuyu sama sëriñ a sekk borom ndigal di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg te yool di ñaanal sama xalifa général Ba Abdourahmane Seck yàlla woyofal yéen bi sama xalifa général bi génn àdduna muy maam Cheikh Tidiane yàlla yóbbu ko àjjana ak mboolem jullit bu ma fekk. quoi li mu ci wax moom comme que tey moom ñu géyaay gi yëpp ak àdduna xam nañ ñu ñoo ñàkk symbole bu mag lañ ñàkk nag koo xam ni def na ci làmb nekk championnat d'Afrique de boxe def ci làmb loo xam ni vraiment bëri tonnerre yëpp ñëw ibbi école litam ba tey gis nga ko champion yi mu génne kon defe naa ne tey bu may jaal damay jaale waa école it Balla Gaye teg ci teg ci jaal bi ci loxo yu Balla Gaye numéro 2 parce que moo fa nekk ba wàcc ay rakkam mu yuusu ak taam musa mi ngi Espagne dina ñaan xolu muñ yàlla na yàlla euh, teg ci njaboot gi loxo yàlla mun na ko yàlla ko yàlla def yàlla yóbbu ko àjjana waaw liñ ci waxaat daal du bari liñ ci waxaat moom mooy euh, nañ jàpp ci njaboot gi bu baax a baax te bañ ci jàpp jàppin gisal bàyyi ba mu dee nga indi nag wala ba mu dee nga ñëw di wane sa bopp amul sens soo ko waxee nag ñu ne def bi wax na parce que bëri na ci ñoo ne tey boo demee seen seen bureau seeti leen 5000 lañ lay may. bu télé tàkkee rey kii tàkke ñuy baatare di lu kenn xamul lool amul sens doo ci am yàlla te boo mayee war nga cee mën yàlla loolu rek laa ci wax ñu jàppale ko ngir yàlla pour njaboot gi parce que bàyyi ma fi njaboot gu sew Youssou mi xam ne champion la yàlla leeral carrière am xam ne bàyyam doona bi mu fi bàyyi rek mu mu relever ko quoi yàlla mun na ko yàlla moo yàlla yàlla def te ko ñaan daal yàlla yàlla yóbbu ko àjjana yàlla yóbbu ko àjjana ya. génn àddunaam nan nga ko déggee. waaw léegi léegi dama yeew rek gis ko ci Pérez yi woo nas ma ne ko per Balla gis nga mënu ma man gis naa ko ci internet bi fekk sama oto paan ma ne ko kon taala soto nga ñëw jël sama ci laa ko jëlee man 50 Cent Moussa Mboob ak Pam Doy de ñu àndandoo ñëw parce que tamit loo xam ne doo ko waaj la loolu moom per Balla mun ngaa waaj lu ne mais Père Balla moom fu ñu fekk rek même bu ñu yoroon oto tamit dina dox ñëw ànd ak moom gunge ko ci këram gu mujj parce que lum ñu ji la am na anecdote yu bëri man ak moom mu def ci man lu bëri Euh, loo xam ni moom mi ngi ci dëgg maa ngi fen euh, moom xam na ñi ma ñi ma fa doon fekkit xam na ba su ma ba gaaree buntu place am sax damay yàkkam nit ñi dañuy yàkkamti mais damay fekk ci frein bi baare foofu yëpp ni ñaan pin pin ma ñëw seq ak li ma seq ak moom taala koy loxo mu wax ma ñaari baat ñaari baat yooyu tey mun naa am lii ma am tey si la bokk. ñaari yooyu lan la. waaw ñaari baat yooyu dama mos a ñëw marché pënd fekk mbappatu arrêt Diallo Mbaye toj géej gi parce que man dama doon bëri mbappat ba guddi ma dem dem Touba dem liggéeyi. mbapat bi toj ma ñëw bëgg bëri na jour boobu dafa mel ni dañ ma ni tey di nga daan champion ma ñëw gaa yi toj ñu ne ma non non mbapat bi yàq na bu ñu dem fële fee nangam ma leen tey damay bëri tey ma ñëw rek mu ne ma Omar de moo fi nekk boobu Omar mu ma quoi boobu moo mën ci géejawaay sama benn turandoo bu ñu xaadim bay rek mer daan non dañ laa bëgg sacrifier rek ma bëmax ko am lu ma ko wax jaxase biteel yi ne ko tam man maay bëri dama koy daan far yàlla ma daan ko cinq secondes léegi bi mu xëy suba ma fekk ko place nga xam ne ku ñàkk ñaan la mu ne ma yoon wi nga jël boo ko wàccul di nga nekk saam dinañ la dégg may dem rek mu xëcc sama mbubb ma dama ñaari baat yooyu nag affaire yooyu toog waxtaan ak moom après ma dem boobu ba tey nag chaque jour su ma ko rombee du ma du ma romb noonu rek dama faa ma wàcc place am. yoon boobu tey moo la indi ba fii nga man dama ko doon déglu. parce que Pape Balla Gaye nit la ko xam ne bu buy wax rek nga xam ne kii dënn lay wax ak lim gëm man dama bëgg genre nit yooyu bëgguma ko koy wax ngir xool sama dërëm bëgguma ko koy xool ni ma neexal mais moom am la ak ñàkk lay la yemale am la ñi ma wax nii ay ñim yor xam nañ ko ñi ma nekkal xam nañ ko moom it ñi mu nekkal xam nañ ko su ma masaan romb day ñëw ma ñaari baar yooyu moo ma a lu ne te su ma juumul jaagar jaagar mos naa indi jaagar jaagar ma boobu man maa njëkk a suñu biir mbapat ma daan ko après comme que yor na mbër nekk na fa no guy gi daan na ko daan ci la ñu yóbbu arène léegi après bi ma ñëwaatee euh, bi ma ñëwaatee war bëriwaat nag la ma la waxal sama nopp loo xam ni ma xam ne kii dafa ñàkk ñaan te am na lu mu lu mu gis ci man ma xam ne man mii comme kii champion la am na qualité mi gis ci man boo xamal li man naa gën a gëm sama bopp moo tax chaque jour rek euh, li naan àllarba xaw ma lan faa ma ñëw joxe ko waxtaan ak moom toog parce que tamit am na am na am na daal lu ma xamal lu ma jariñ lu ma jariñ waaw lu ma jariñ jaajëf